jëlilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat wa jëlilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat wa salliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara ونجني وحله أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفع سخدا أو مالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi jàkkaarloo moom ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di nuyu ñëpp di leen baalu àq di siyaare ci weer wi ñu nekk muy sax ramadan al tey jii nag Touba ci kanam ci ndigalul kilifa yi sëriñ Alaaji Tàkko sëriñ Abibullahi Mbacke Cheikh Abdoul Ahad Abibu sëriñ Abdou Fatah Gueye président ñu jugoon ci seen digal ànd ak euh, ñetti comité yi nga xam ne ñoom la ñu dénkoon lu jëm ci liggéey bu mag bi nga xam ne Touba ci kanam amaloon na ko ci dëkk bi jëme ko ci wàllu daara euh, daara yi nga xam ne dëkk bi ci boppam atteb daara la amoon ndax bi ko sëriñ bi sant yéenee daara la amoon li fi bëggoon itam mooy jàng ak jàngale loole it la fi digaloon képp ko fi nekk waxoon na ne itam bu fekkante ne am na cat ci kaw suuf catam mooy ñàkk mën a nekk Touba di jàngale waxoon na ne itam ñi ko wuutu Touba di ko jàngaleen ñoo ko wuutu dëgg-dëgg ci ab liggéeyam loolu nag bi Touba ci kanam tàmbalee fas yéene liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi dafa xam ne loolu kenn mënu koo ñàkk jiital ba tax mu am mu amal ci programme bu yaatoo yaatu muy at mu jot mu tànn ñi nga xam ne liggéeyub sëriñ boobee ñëw ko ci wuutu yor ay daara ci dëkk bi mu kenn ku ci ne xool la fa nga nekk fa nga tollool ci ay yitte la mu ca man mu dimbalee la ko daaw xam ngeen ne yëkkati woon nañ lu tollook ñaar fukki million ak euh, juróom jëme woon ko ci fanweeri daara ak ñaar loolu nag mu doon liggéey boo xam ne comité yi ko yoroon boobu ba léegi ñu ngi ci woon bañ egg ci mujjantal gi Euh, nu nu nu dajawaat nag di wër daara yi ngir xool liggéey boobu fan la toll euh, ñu dem ci daara yu bare bari yoo xam ne euh, bi ñu ca demee gis nañ ne ñenn ñu ne càkkutéef ga ñu ga ñu sàkk woon am nañ ca lu kawe seen jort ba ñoom ñëpp kuñ ca dem yëkkati na kàddoom rafetlu liggéey Touba ci kanam santaat ci ndax lañ leen defal day loo xam ne mënut ñàkk ci daara muy néeg bu gone yi fanaan wala wanag ñu ñuy suturloo wala mbaar mu ñu toog di jàng loolee nag euh, moom lañ doon xool si tey sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla suñu sëriñ bi nangul ñu liggéey bi te itam ñu di ko gën a man di wax na itam loolu benn liggéey la rek boo xam ne ci at mu njëkk mi lañ ko tàmbali rek muy daaw waaye at mu njëkk mi at mi ci tool yi topp itam Touba ci kanam sumbaat na lu ëpp loolu ndax euh, amaat na yéene def juróom fukk million ci daara yi nga xam ne Euh, bokkuñu woon ci limub daaw bi loolee itam noonu lañ koy continuer rek ba fas yéene fépp fu ñuy dégg Touba ci Kanam muy yëngatu ci ay tali wala di ko yëngatu ci leneen nañ xam ne buñ ko yëg buñ ko yëgul Touba ci Kanam moom mi ngi ci daara yi di leen jàppale na nga xam ne noonu lañ ko noonu la ko sëñ daara yi di sàkkoo ci ñoom te fekk ne it loolu moo dëppoog bëggug sëriñ bi kon nag ñi ngi sant mboolem koo xam ne da nga nekk ci Touba ci Kanam euh, di leen ci gën a soññaat bu baax a baax di leen wax ne liggéey bi mi ngi nii Euh, képp koo xam ne yaa ngi ci woon ñu ci gën a soñaat képp koo xam ne tam nekkoo ci woon ñu ngi la ciy woo euh, di ñaan ñëpp gën cee defaat yitte gën cee defaat tawféex ndax lépp lu ci waay def na nga xam ne sa sa sa saw ñaq ci lii rek lii rek la jëm lii mu jëm it mooy li nga xam ne moo gàddu lislaam ndax lislaam moom li feek ay dongaa ngi ci ay daara di jàng alxuraan di ko wattu di jàng xam-xamu diine di ko mokkal nañ xam ne lislaam foofee ma nga fay am yaakaar waaye fépp nopp faa gis kuy jàng xam-xamu diine foofa bu fa lislaam de nekkit dund gu mu dund ko dund kon nag alhamdulilah ñi ngi santaat yàlla bu baax ci wàll wi nga xam ne Touba ci kanam leen na ko daara fii ci Touba di ñaan yàlla sëñ Touba nangul leen jëfee man la Sidi ma faate bisiri fii Touba Daaru Marnaan di ci kanam ñëw gi fi ñëw li ko war a ñëw gi nag mooy dafay defar am mbaar moo xam ne nii mbaar mu ci ayib muy mbaar bi ñu nekk yaatu lool te defar lool wax dëgg yàlla féex lool boole ci baax ci daara ji lool baax ci dongo yi loolu nag li tax ñu def ko Sëñ Tuubaa tax ñu koy def ndaxte Sëñ Tuubaa daara rek la bëggoon lool daana wax naan lii laa bëggoon moom mu jàngale Alxuraan nekk Tuubaa jàngale Alxuraan jaan yàlla def na mënu ko nag ñu ñoo ko mën di ko defal waa Tuubaa ci kan jàppale ñu defal ñu lu mel nii ñu leen sant di leen gërëm baax a baax ci seen taxawaay bu rafet seen jëf ju rafet yoo xam ne nii wax yàlla ñëpp ko rafetlu ni ma defee daara jii nii noonu noonu defee yeneen 32 daara yoo xam ne ci Touba ci Touba ci ñun ko defaral di xaas bari bu ñu ci def loolu ak sant ñu ngi soññ mbokk jullit yi ak mbokk taalib itam ñoo xam ne lii nii ñett yi joxe Touba ci kanam moo ko def def yeneen yeneen kon ñett téeméer yooyu bu kenn xeeb nañ ko joxe te am ci ba séef li ma daan wax rek képp koo xam ne mën ngaa joxe an mi joxe at moo gën nga joxe ñetti par weer joxe sa douze mille joxe nga joxe ko ku mën a romb douze mille yi nga joxe romb nga romb ko ku mën a joxe sa sa baay ba nelaw wala sa yaay ja nelaw wala sa mag ja nelaw nga joxal ko ko ndax lépp addi Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa la ci jot ndax lii ku gis xam ne Sëñ Tuubaa na ci kon nag ñoo ngi sañu yëpp su ngeen ñëwee tàmbalee ci sëñ bi gën a bëgg muy alxuraan te dëkk bi lu fi waay yëngu lu yëngu ba rëy rëy te boolewoo ci alxuraan day day day mel ni am na loo bàyyi ci yëfi bi kon yéen su yàlla dogalee ngeen tàmbali bi liggéey tànn li sëñ bi gënoon a bëgg nga xam ne wax ne moom la dëkkaale daal di wax ne ku ci nekk boo ci nekk boo ko yëgee boo ko maa ngi man ngay liggéeyal kon dafa mel ni yéen yéen nga am lu def lu am maanaa lay itam yàlla na ko yàlla gën a dëgëral te saxaal ko daara yi nag nii ngeen ci def baax na ci lool ndax fekk nit koo xam ne day jàngale alxuraan li mu bëgg lépp mënu ko ndax alxuraan ni mu mettee ak ñi ko yor ñëpp ci coono lañ dëkk ndax foo leen fekk da leen di yërëm te loolu suñu borom moo baaxoo képp koo xam ne da ngaa dë da nga ko bari yu we yu baree bari dala koy xañ ngir bëgg seet sa dëgg sa digg moom ndax wér na wala wérut loolu waral jànkati alxuraan yëpp am jafe-jafe ci fañ nekk waaye yéen nag nii ngeen def fekk waa joo xam ne mbaarum sàkket la yor ngeen fexe ba sengal ko ko fekk waa ji yor mbaarum sàkket ngeen fexe ba terasal ko loolu ndimbal la ndax wóor na ma ne am na ñoo xam ne su fekkoon ne du lii ngeen leen fekk seen daara yi defal leen mbaar duñ am mbaar ba àddunay tukki ndax duñ ko man ndax du ngeen ko leen dimbale kon nag ñun de suñu xol set na ci guy noo ngi ci ñaan baax damaa rek ñëw ñu ne ma ñun de waa ci kanam ñëwoon ñëw nañ ci sëñ sëñ maam Mor sëñ Fall am na lu jox sëñ bi ci ay daara yow booyal na la ci ma def ko cant yàlla lool wax dëgg yàlla rafetlu ko looy itam boobu tam jàppi mu sax ne dana gaaw a ñëw ndax. xam nga léeg-léeg nit nit ñi léeg-léeg nga dégg ci jotaay ñu wax la dara te fekk du yomb ay wax lay doon rek ak bëgg nit ñi dégg na yéen a ngi dox rek loolu danañ koy dana xew ci yu bëree bare bëri moo tax bi ñu ma waxee ne man ne dañ ko defar jàpp mu woon ne dana gaaw ndax booba jege naa màgg ak lool waaye ginnaaw gi ma gis sëñ Saliou mais ànd fekk bagage ñëw ni ma tey tey tey lañ bëgg a tàmbali mbaar mi ma ne ko ah loolu jàmp na di mi ngi fekk sax booba maa ngi def ay mbaari seng yu yoo xam ne lu ne am na lu ci dajji ko te àggale mu ko mu ne waaye loolu lañ ma wax ne ma daal bagage yaa ngi nii ma daal di koy dajji ci bis bi moom mi mu daal di ñëw ndeysaan tàmbali ko booba itam ba léegi jàpp ma ne li ma ci bëgg danaa ko mën a am ndax xat na waaye ñu daal koy song ak positif ba mu mel nii mu mel kon sant naa ci yàlla bu baax kon Touba ci kanam seen liggéey bi yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla jàpp te yàlla lépp lu mu jàpp mu taxaw ndax yàlla rek moo mën a aar mbir loo mën a sëñ ba yàllaa ko mën a aar kon yàlla mi nga xam ne mooy aar lu jóg aar sëriñ bi nga xam ne moom dëkk ba defal ko nii mu ko defaree lim ci bëgg yéen ñii ngeen jëlaat seen alal ànd ak mbooloom sëñ Tuubaa mi di ko liggéeyal suñu borom di ko def ci daara alxuraan yi loolu lu am solo la te nit ñi kat lu jafe mooy laaj leen alal moo gën a jafe ci ñoom ginnaaw buñ la ko joxee mu gën a tey jafe ndax saa la joxee seen ñaar dërëm ku xëy yenn ñoom kay xaay bi lii lañ jox dafa bari ñoom gisaguñ luñ def waaye li ngeen def li ci gën a rëy mooy ña daara yii ngeen taxawal fenn fu ne daara nekk fa ku te ku ñëw mën a teg loxoom ne lii daara la ma wax ne itam ñee ko def looy lu am solo la li ci yokk mooy li ngeen ci yokkaat mooy fajukaay ndax bu ñu dee jàng te amul fu muy fajoo itam mën naa sooxe waaye su ngeen demee ci quartier yi gën a sori nga xam ne ñoo gën a sori ci dëkk bi ngeen fexe a taxaw taxaw fa ay ay fajukaay ñooña man caa faju itam loolu itam li sëñ bi bëggoon yéen nga ca ndax nit bu wéru du mën a jaam yàlla kon ngeen dolli ci lan mooy social bi ngeen def te ma dégg ko bu baax ndax dara du ma cumb ndax yow xam nga ma sëñ Fall man lu ñu def ci dëkk bi li ma ci li ma ci ñàkk li ma ci li dana néew waaye social bi sama xol ndax bari nañu def social yoo xam ne dañ dajale junniy nit duñ leen jox sax lu mat fukk su ko dee ñu ne fay raj-raj loo ñu leen di filmer ak a sooloo ba jant bi la fa joxe te fekk lañ fa sax ñoo ko lekkaat joxewuñu waaye ni ngeen def nag tànn ci dëkk bi dox lu mat 6 kilomètres ci pegg bee dox lu mat 6 kilomètres ci pegg bee fu ne ngeen dem fa gën a mujj ci dëkk ba xool ña fa sonn ngeen jël al jot leen ko ñoom jël ko te yàlla rek tax loolu mooy social waaye social du dajale am mbooloo rek fu ne waaye di fa rang rek ku ne yoru caakoom yeeru siom ngay koccaatu ba jant bi so nga la yàlla mooy def rek deko si defoo dara loolu sëñ Tuubaa rek ngay nax waaye sëñ Tuubaa nag nee na woon sëñ sëñ Maay ak nee na woon kenn mënu ko nax nee na woon loo dof dof doo ma nax loo yeewu yeewu doo ma nax waaye man loo dof dof du kon li ngeen liggéey Sëñ Tuubaa leer na lool ñun de teg nañ soon bët te ku ami bëtam di xool la Sëñ laa Lahat waxoon ku ami bët di xool jërëjëf wax ma nga ne te ku dul gisit jërul wax ma nga ne ndax du ko gis kii xool moom gannaaw gis na jërul wax ma nga ne ki amuti bëtit moom jërul wax ndax du ko gis lii moom wedd gis bokku ci ndax teg nañ suñu bët ca kanam ñoom daal seen pas-pas ak seen yéene ak seen liggéey wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko lool ndax euh, lu ni leere daal ñun daal li ñu li mooy la sëñ Fallou waxoon rek murid yi daal boo leen di laaj na leen di laaj luñ man di ko def fuñ gis loolu nag ñun moom lañ gis ci Touba ci kanam ndax mbaar mii de wax dëgg yàlla ñoo ko fi def te bañ ko fii defit ñun yitte woo woon nañ ko lool lool lool ba doon ko sabablu sax xëy na donte mënoon nañ ko yit defin wi mënoon naa yeex waaye daal defe nañ ko noo xam ne daal wax dëgg yàlla kawe nañ suñ njort te it gis nañ ko ci yeneen bërëb yu bari yuñ ko def seenub liggéey daal rafetul nañ képp koo xam ne daal bëgg ngaa liggéey sëriñ bi te liggéey ba àgg ci sëriñ bi jort naa ne Touba ci kanam moom boo ca defee sa alal moom dana dana dana àgg kon daal maa ngi leen di soññ yéen murid rawatina sëriñ daara yi nag nañ jàpp ci Touba ci kanam te di leen di leen ñaanal bu baax a baax ndax jàppale nañ alxuraan daal ndax sëriñ Touba moom ab liggéeyam mm, mooy alxuraan ak ak dëkk bi rek te Touba ca kanam moom ñaar yëpp ñu ngi ci yëngu ñu ci dugal seen loxo weddi daal moom gis gis bokku ci dëkk bi bëgg sëñ bi di sànc jàngale ak jàng ko maanaam ko sëñ ko ngir foo mën a bay sëñ ko ngir foo neex a dëkk ngir ñàkk fu wala dara dara taxul mu sànc ko lu dul jàngal xol di ko jàngale kon saa boo xam ne jug jëm ci loolu day mel ne jëm ngeen ci la xam ne moo jëm yàlla nañ ci suñu borom gën a defal taw defal leen ci ngërëmu sëñ bu wér wér euh, sant itam ci taxawaay bi ak niin ko def ak niin ko defee dafa am solo lool ndax euh, ñu bari dañuy dañuy dañuy xam ne lu xaw a fàtte daara yi te fekk daara yi eh, fi la lépp soq ko ndax jàkk yi ñuy tabax imaam yi ci daara la ñuy jógee lu ñoo jëm ci jàkk yi kon saa boo leen jógee suñu borom dafa dimbal leen tawféex yi dafa leen tawféex yi seen xel jëm ci daara yi eh, nekk na loo xam lu am solo te it liggéey bu gaaw la ci sëñ bi nangu ko am nañ ci kontaan ak mbégteem xol mu rëy rëy ndax ba dëgg fa yàlla eh, daaw ci heure bi bi ngeen fiy ñëw waaye booba ak léegi ni daaji mel wute wuute na lool ndax ay wanag amu fi woon benn néeg bi itam donc moo fi nekkoon mais miir bi sax tawféex suñu borom tàmbali gi ngeen tàmbali ci la suñu borom defee tawféex ba miir bi ñu jàppandi waale kon sant nañ baax ci teew gi ngeen teew ak ñëw ci daara ji euh, jàppale ñu ci baax a baax yëg nañ ko bu baax daal sant nañ ci sëñ bi sant leen ci bu baax a baax baax te di leen xamal moom lu am solo la ndax dëgg yàlla ñu bëri ñu ko doon dégg naan Touba ci kanam waaye xañ ne sax ñu bari sax am nañu ko gëmawut waaye lii moom firnde la ci ci barab yi ci barab yi nga xamante ne Touba ca kanam ñu ngi ci doon liggéey ba tax na it loolu ñu ngi ci sant bu baax te ti leen ko seeral di leen xamal ne it lu am solo la ndax it seen i doxit yàggul waaye yaakaar naa léegi ñëpp teg teg nañ seen bët di ngeen ñëw it daa fekk ma ñëw fi bees waaw wax dëgg yàlla bi ñëwee it jàpp na ngeen ci barab yi lu mel ni néeg yi yëpp ñu ñoo ko fi def ba tax na it loolu am na solo bu baax a baax a baax a baax lii daal dara ëpp solo daa dëkk bi daal moom lépp lu ci waay def rek sa bopp la ndax xam ne dëkk Serigne Touba la ndax kat Serigne Touba moom bi fi ñëw àll la fi fekk waaw àll bi nag bi koy sanc it moom taxul ak njabootam taxul ñun taalib ñoo taxoon te loolu mooy ab liggéeyam waaw lépp loo xam ne def na ko rek taalib yi ñoo taxoon rawatina nag bu ngeen nosee lu mel nii ànd nekk benn ku jël ñaqu nit ñi ak seeni ñaq di ko jël di xool li nga xamante ni mooy mooy li am solo ci dëkk bi ngeen di ko def rawatina ni ñi nga xam ne it li fii ngeen tàmbali woon ci barabi alxuraan yi te it wax dëgg yàlla waa alxuraan kat ku leen jàppale ku ne su sa bopp nga jàppale. day wax ni tey jii am nañ mbégte mu mag loolu ko ci mbégte mi daan am di mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ñëwee seesuñu ñi nga xam ne ñooy waa Touba ca kanam ah, ñu liggéey liggéey bu am solo boo xam ne wax dëgg yàlla liggéey bu fees la boo xam ne moom bu bu yomba leeral la ndax fii ñu nekk ci barab yi seen jëf agsi na fi te nam fi duggee lépp mën nañ ci seere ndax lépp luñ luñ fekk la luñ teewlu la mu mel ni barab yi nga xam ne dañ fiy liggéeyale yàlla suñ ko defee ci dëkk bi tedd bi xam ne mooy dëkku Sëñ Tuubaa ñoom ñu ñëw fi am taxawaay buñ fiy taxawee lu mel ni fuñ fuñ dem buñ ko nemmee gis ni fii mbaar jaadu na fi ñu def fi mbaar te mbaar miñ fi def itam duñ ko def mbaar yoo xam ne day doon turu mbaar rek wax dëgg yàlla mbaar yu jaadu lañ fi def yoo xam ne ku gis xam ni jëf ji rëy na ku nekk xam ne tamit ak set lu am solo la ci barab te dañuy dem ci daara gis ni fii kat wanag jaadu na fi ñu defar fa wanag defar ko tamit defarin woo xam ne wax dëgg yàlla wu doog lay doon bu dee foo xam fenn fu nekk daal la fa yell loo xam ne jaadu na fa wax dëgg yàlla ñu ngi koy def ci biir daara jëf ji nag man daa dikk ba agsi man kon mën naa ci seere ma yaakaar ne kenn ku nekk ku bëggoon lu baax wala nga am yéenee tabax daara wala yéenee tabax jàkka wala yéenee defar mbaar wala yéenee defal eh, dara ci alxuraan da nga jàpp ne na nga ko yéenee mënoo la nga ci am lu tuut tuuti boo fexee ba jaarale ko ci ñoom ñu dugalal la ko ci biir liggéey bi dana mel ni yow sa jëf joojee la nga bëggoon am nga ko donc ci soññ suñ bopp te ci soññ ñëpp tey ñaan ñoom jëf ji niñ koy jëfee sëriñ bi nga xam ne ci ronam lañ nekk te di ko jëfal mu mu téyel leen seen i jëm ak seen i xel ak seen lépp ba nuñ ko bëgg a defee ñu def ko lu kawe njort ni jëf ji tàmbalee daal yàlla leen yàlla dimbali ba jëf ji sax rek da ko sëñ yaakaar naa sax rafet nañ ci njort ndax sëñ boo waxoon ni jëf la joo xam ni day dem rek waaw kon nag ñun ñoo ngi ciy sant bu baax tey gërëm tey ñaan suñu borom doole leen a dimbali waaye jëf ju rafet la daal joo xam ne ku bëgg lu baax ku ko ku ko gis war na koo mën a rafetlu ñu ci wàll daal ci suñu xol ñu ngi ciy sant tey gërëm ñaan suñu borom doole leen a jàppale doole ñoo jàppale waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jalilaay maskani misras mi abijaayi xayri ma nabaat waajal ilaahi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara fanajjini wa xillahu aw saara wa kullu man abani aw maara illa yafasuqu dan aw maara